Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul au Gabon Tawfekh Production di si ànd établissement Mbaye et Frères Techno Habitat ak Digital Store ngir gunge leen ci bisu tedd yooyee Avec Digital Store, vous allez enfin réaliser vos rêves grâce à la toute nouvelle gamme de smartphones et téléphones Android dernier cri de l'entreprise Crosscall. Vous n'allez pas nous croire, c'est la première fois dans l'histoire de la téléphonie mobile qu'un constructeur de télécom met sur le marché digital des appareils téléphoniques garantis cinq ans. C'est le M5, le X5, le T5 et le S4. Les produits Crosscall sont d'une solidité et d'une garantie que vous puisque prouvé aux normes militaires et doté d'une autonomie largement suffisante avec alarme en cas de danger. Les seuls appareils avec anti-choc. Ils sont étanches dans l'eau, du jamais vu. Les appareils Crosscall vous accompagnent dans toutes vos activités professionnelles, au bureau comme en dehors du bureau, pendant votre sport ou pendant les travaux champêtres, les chantiers ou en mer et partout. Contactez-nous au plus vite dans nos boutiques showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 ou à Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien. ñëw nañ ci yoon wi nga xam ne moom lañ tuddee Sëñ Touba fii ci Gabon maire Albert Oyam bu deuxième arrondissement tuddee ko Sëñ Touba mbedd bi nag mbedd mu am solo la fii ci Gabon ndax moom. mi ngi bawoo ci kaw zone Sodega wàcc ci boulevard bi nga xam mooy boulevard président Omar Bongo bi nga xam ni mooy yaatal dine l'islam ginnaaw bu mu doonee président jébbalu dugg ci l'islam ni man je suis un mouride de cœur ni moom mouride la bu jox sëñ Tuubaa ab xolam bu ko defee loolu nag su yàlla dogalee moom moo permettre caravane bi seen euh, këyit yi nga xam ni ci la sëñ Fall bu sukkandiku ci ñaar téeméer nationalité yi bu ko may ba taxawal ONG bi ba ñu wootee ndaje mi ba mën a am tey loolu boo jur lii ñoo xam ne nag maire bi biñ koy fal sëñ bu Bousso dafa ñaanoon ñoo ñu amoon nationalité ñu ñëw wootee si ci deuxième arrondissement bi bu ko defee kon ñoom moom ci boppam ci ak palam ak lépp it nag communauté Mouride bii ne fii cee bokk comme ñun ñii ñëpp bu ko defee tey sëñ Fallu ñëw taxaw fii sëñ Koso Mbàkke di fi door a jógee nag maire central bi ak maire deuxième arrondissement bi ci seen ndigal la ñu gravé panneau bi en marbre may nañu ñoom suñ paree travaux yi ñu def ñu embellir yoon bi ba mu ba mu set fixé fi tableau bi fee buñ neexee def ci ay fleur ba pont bi yéeg loolu la maire central bi wax nee na nag maire moom dafa bokk ay vocation setal set ak setal te nee na loolu xam na ko ci communauté Mouride bu ko defee ñoom nee na nañ fexe ba mbedd mi doon mbeddum exemple moo xam ni Libreville gépp dañuy xool ci mbedd waa ci ak ko defee loolu mu doon loo xam dina mën a amal réew mi njëriñ kon daal sëñ Fallou ah. yow mi nga xam ni yàgg nga fii Gabon ñu fekkee ko ci fukki at ak nangam sëñ Fallou di dox ba wutalee kayit ba nommé ci conseil supérieur affaires islamiques fii ci suñ kanam en tant imam en tant que imam nga nekk ko fii ci Gabon ma gis ni tamit fii ci Gabon fii nga toog ba samp fi kër yor fi ak njaboot ñu ànd ko ak yow ba nga dellu Touba tey jii loola muy dox ba àddina bépp xam nañ la dina étiqueté ji Gabon sëñ Fall Bousso Tamba tey lan nga wax ci mbedd mi nga xam ne moom tudda sëñ Touba te panneau bi ci sa di ko firndeel maire Albert Oyam def ko waaw euh, alhamdulilahi rabbil alamin xanaa sant yàlla bu baax sëñ Cheikh Baye Fall sant yàlla bu baax a baax rek ci xéewal gu réy gii li nga wax moom kenn mënu cee teg lenn lu dul waaw lu dul rek euh, sant gi moom mooy jiitu sant suñu borom ci sëñ Touba mm-hmm. li sëñ Mountakha di wax rek yàlla na fi yàgg lool mbàkkite ànd ak ñu wax ne nañuy sant sëñ Touba nañuy nañuy jaamu yàlla ngir ngir di ko liggéeyal sëriñ bi waaye di liggéeyal sëñ di ko jaamoo yàlla di sant yàlla ci sëñ Touba itam waaye di sant sëñ Touba itam ci wan gi ñu wan yàlla ak boole gi ñu boole yàlla kon ak cant rek la lii nag lu rëy rëy la mm-hmm. eh, bi ngay wax rek sama xel dafa daal di rot ci ay ci ci bayit mm-hmm. woo xam ne dafa mel ne lii da koo findeelati mm-hmm. mooy ataaba lil mamarra kal awtaani baaqin aadani min alcheytaani Eh, ak duuri wa maa lixtiira min jiiraani naajiyatun min jaalibil xusraani ak ca nooru daareen ijaal maqarri wa mamarri fi duyuur liya shawaahida bi afdali xuyuur yooyu yëpp soo ko boolee day firndeen mbedd mii ak maanaam jëf jure ji bu njëkk ba sëñ bi day wax ne suñ boroom mi mi nga xam ne moom moo moo moo ma dàqal seytaane musal na ki seytaane moo teeyal moo baaxal neexal sama sama yoon maanaam sama jaarukaay maanaam nga xam ne baatu mamar day rot lu bare bari ci xaside yi mm. mamar mooy ab fu ñuy fu muy jaar fu nit di jaar di dem mooy mm. rii wala lu aw yoon la wala lu mën a doon mm-hmm. mu ne yàlla moomu nga xam ne moo ko moo teeyal sama yoon mooy ki ma musal ki seytaane mm-hmm. ci nooru daane di ba mu ne yàlla maa ngi ñaan mm-hmm. fi may ne mm. mooy fi may sax ak yoon yu may jaar sama yoon ak samay kër na doon yoo xam ne dañ may seedeel bi afdali xuyur ci ngën ji yiw yi lii nag bokk na ci kon lii seedal Serigne Touba fii fi Libreville yiw yu rëy yiw yu màgg te seede googee ñun ñii dañ cee bokk ndax li nga wax léegi Serigne Fallou taxawaayam Serigne Fallou Bousso di suñu wayjur di suñu nekkoon suñu xarit ñuy siyaar si Seexuna mi nga xam ne tey jii li li arab di wax ne alwaladu sirru abi doom mooy maanaam doon mbootum baayam macha allah yal na ko yàlla dolli wér ak kattan taxawaay bi gën a yàgg lool waaye yéen ñiitam ay doomi Serigne Fallou yu ruux ngeen fi nga waaw ah, ni man mii ak sëñ Seexuna mii ni ñu sëñ fàllu jure noonu la leen jure yéen itam ci wàllu ruux loolu xam nañ ci lu bare bare bëri ah, loolu nga wax keroog bi ma fi amee sama taaw muy 1900 defe naa 98 maa ngi doon xalaat sax léegi ci ci fan yi rek bande yi muy lu yàgg mm-hmm. yéen ñii keroog waa daayira xasaayid yéen a ñëw xëy jàng xasida yu ama am solo lu jiitu sëñ Fallou ñëw di ko tudd ak ma ak maam Diarra kon loolu euh, man man te tegtal la firnde la ci ne lu suñu ànd lu yàgg la te ànd bi yàlla rek ko lal ak ak itam maanaam Seexul Xadim kon lii moom sant yàlla rek lañ ciy def te ñu xam ne daal euh, maanaam waa waa réew mi mu mu tàmbalee ci kaw ba ci suuf ba ci maire bi ko def defal nañ Sëriñ Tuubaa loo xam ne ñun ñëpp la ko defal ndax Sëñ Tuubaa lépp lu ko waaye defal maanaam euh, Cheikh Mountakha mi ko fi nekkal moom moom nga ko defal waaye lislaam nga ko defal waaye taalibe yi nga ko defal kon ñun taalibe yi ñoo ko war a jéem a fay mënuñu koo fay sax waaye nañ nañ ko ñaanal ñaanal borom réew mi ñaanal itam autorité municipale yi nga xam ne ñoo ko taxawee ba ñoom itam yàlla wan leen ci jëf ju réy ji ñu jëfal Sëñ Tuubaa ndam loo xam ne day gën a jëm kaw ndax Sëñ Tuubaa képp ku ko liggéeyal ku nekk faaw nga gis pay gi fii ci àddina ak ak dégg ci àllaaxira kon daal moom maanaam sentiment yi mbégte rek ak ak dégg nga rek nag tey ji ñun ñëpp dañoo fier doon ay murit mm-hmm. waaw ñun ñëpp tey fier nañ tey doon ay murit ci lii kon ci fii dégg fii ci Gabon nga xam ne fële Cheikhul Khadim liggéey la yàlla ba am lu mu am ñoo ngi sant yàlla bu baax di gërëm sëñ Mouhamed sëñ Mountakha di ñaan mu yàgg fit te wér lool kàddu yi sax doyoon na lool bi sëñ Fall waxee rek Euh, kàddoom doy na danañ yóbbaale suñu kàddu waaye yëf Sëñ Tuubaa moom euh, géej la ku nekk mën a caa wax li may wax rek mooy euh, cant gi si mu taxaa la jiitu yaakaar na bi ñu demee Sénégal di laaj ndigal pour karawaan bi nag suñ fàllu mi ak suñ kalaam ak ñenn ci njaboot gi bi ñu demee ñoo ko annoncé woon mbedd bi xamal na ko maire bi dafa tuddee mbedd mi Serigne Touba mu am ci mbégte lool keroog daa mel ne waxtaanee waxtaan bu yaatu sax ngir bégte euh, laaj Serigne Fallou mi ay ay kàddu yu xaw a yaatu ba mu fa jógee nag sëñ bi ngir bég ci Serigne tubaa ndax moom amul sago ci sëriñ tubaa ndax bëgg ko ak fonk ko ak yaatal ko loo def ci Serigne Touba rek da gis ne ni mu ci réagiré mu bind benn bataaxal boo xam ne da ko ci maire bi pour sant ko gërëm ko ñaanal ko jox ko suñ fàllu suñ fàllu jox ma ko ma jox ko suñ kalaam mu envoyé la ko nga yóbbu ko ci euh, maire bi mbingoog waaw waaw waaw mbingoog mbingoog kon nag cant gi ñun dañoo ñëw rek xanaa di gën a dëggal cant si mu taxaa waaye sëñ bi cant na ko ca Touba bind bataaxal envoyé ko ko defal ko murid yëpp kon nag loolu dañu xam ne rek sëñ Touba euh, moo nekk nit koo xam ne xanaa lu ñu tegul suñu bët waaye lépp a ci kanam te léppay mujj dara ci ay loxoom lii mbégte la moo xam ne euh, ñun ñëpp war nañu sant yàlla baax gën cee jàng gën a fonkaat nag sëñ murit bu nekk fii ci Gabon mu nekk modèle boo xam ne ku la gis rek si yow Sëñ Tuubaa nga xam ne ñu bari dana man a jaar ci yow sa comportement ak sa bëgg Sëñ pour mën a xëy yoon yi pour tàbbi ci asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Seex naa moom lii mujjee yi daal mooy hmm. sëñ Maam Thierno Mbacke ci turu sëñ Mountakha hmm. invité na maire bi ngir mu ñëw Touba macha Allah nee na dina dina ko wax hmm. équipe municipale ba ne Touba ñu bind lettre ci turu sëñ bi invité maire bi moom ak ñi muy àndal ñu ñëw Touba waaw kon loolu moom mooy information bi bawoo Touba jëm ci moom murid yi dëkk bi tamit am na ay xeet ay tableau yu ñu dajale ak mhm. yére lu ne ngir war koo jox meel bi mhm. comme feetu di sadul bi daa dugg ñoom seen programme xat moo tax ñoom mhm. mu am ci diggante yoo xam ñun ñoo ko ci waaye dinañ fi des loolu ñu àggalee leen taxawaay bi moom euh, lenn rek la mooy suñu fàllu dafa amoon yéene ju rëy amoon vision ba taxoon ma bëggoon a jëmbatal Sëriñ Tuubaa fii ci Gabon loo xam ne fondement lay doon boo xam ne lu waaye ñëw rek teg ci kawam moo mën a a jëm ci kanam mu wutoon benn ONC boo xam ne wutal ko ay kayit ba am ba lépp génn wutal tànk yu dëgër ngir man liggéey bi liggéey Sëriñ fii ci Mayumba mu ma nekk liggéey boo xamante ne bi dana mën a jëm ci kanam te dara du ko mën a gàllankoor liggéey boobu nag am na ay projet projet yi nag bokk na ci naal jumaay Sëñ Tuubaa ju mag ca Mayomba fam sampoon ay bantam ñu koy sempi naa ko fii jumaa xew fi projet boobu bokk na ci sampal fa jumaa incha allah rabbi jumaa ju mag jumaa ju rëy yoo xamante bi da nekk sembul ci mboolem murid yi da nekk sembul ci gaboo gi ndax loolu war a mën nekk la ak daare Sëñ Tuubaa yoo xamante bi dana mën a yaatal njàngalem Sëñ tubaa fii ci gaboo ñu xam sëriñ bi xam seen diine ba ca gabon yi sax dañ mën a léegi jàng xam seen tubaa xam seen diine mu nekk liggéey boo xam ne liggéey bu yaatu yaatu la boo xam ne dañ cee woo mbooleem koo xam ne seen tubaa rek ñor na la euh, nga mën a participer ci liggéey boobu loolu mooy projet yi nga xam ne fas nañ ko yéen incha allah ànd ko ak taalibe yi ci njiital Sëriñ Seex Mbeng mi nga xam ne léegi mooy euh, jawriñ ji ànd ko ak mboolem taalibe yi yëf nekk yëpp fas yéene loolu mu sampoon mu liggéey seen tubaa ba ñëpp mën man mën cee jariñu